Amady Ba fii tey lay mel ni mbàccu gerte kenn du Sonko Seydina Ousmane kenn du moom Sonko kenn du moom Seydina kenn du moom waaw waaw. Sonko Sonko mooy Diomaye réew mi danoo sonn ci li fi ne danoo sonn ci li dafa war a changer Sénégal yoon beneen xar kalam bu neexee yàlla am nañ confiance ci Sonko am nañ confiance ci Diomaye da projet bi vive le projet vive le Sénégal vive président Sonko jaajëf man peace and love incha allah ca kaw rek incha allah waaw voilà mu ngi noonu yéen ñu ngi fii ci diwaanu d'accord euh, mu ngi noonu baal ma wàcc tuuti rek mais nag monsieur maa ngi nii. maa ngi siyaare. noo gisee tey bés bi. waaye bés baa ngi nii ñu waajal si koor gi di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp ñaan yàlla yàlla may ñu koor jàmm euh, comme ni ko tàmbalee nii si bisimilah ma rahiim jeexalee ko si alhamdulilah rabbil alamin di bëgg rek sénégalais yi kenn ku si nekk jëli sa carte électeur bu nekk bu sensibiliser famem patriote bu nekk bu waxee ak waa këram waa fu mu yi mat pater bu nekk bu sensibiliser ay famem mbokkam maamam ay xaritam ay dëkkandoom carte gi leer na benn pater bu nekk mu jaral ko mu sumi sumi solo ay dàllam dem par kër par kër wax ko kooku kooku dem wax ko. sensibilisation ngay woon. waaw foofu laay waxee incha allah di tamit di ñaan di ñaan ñu di àgg si élection si ñi ñaan si élection yi am jàmm di sant waa mel mu secrétaire kër yëpp parce que ñoo ànd ak Khoureyssi Thiam Khoureyssi Thiam la ñu àndal. wax dëgg fa yàlla ànd ak euh, ñëw ñëw dajeeg euh, Ba Bara bi wax dëgg fa ñu koy ñu rafetlu li mooy lii moo lii lañuy wax patriote patriote mooy boolu àndee da ngeen àndoo ñëpp si jàmm maa ngi tudd maa ngi tudd bokk si bureau membre Pastef yi ñi nekk si Sacré-Cœur 1 euh, jërëjëf li ma bëggoon wax mooy maanaam yéen journalistes man j'ai beaucoup de respect pour vous quoi mais y' a certaines personnes ci yéen yoo xamante ne y' a certains princes sax yoo xamante ne dañuy jéem a nekk fii di jéem a convoqué ay affaire de report affaire yooyu yooyu dépassé nañ ko le date a été déjà fixé quoi comprendre nga dañuy dem ci élection jëli ndam li mu jeex quoi ñu tabaxaat beneen Sénégal ñu nekkaat ci beneen air quoi comprendre nga on est foutu quoi ñun dañu saa dañoo sonn ga nga nañu dépassé mettre euh, wax boobu ñuy wax quoi comprendre nga alors ñu ngi noonu hmm? Euh, Xorey nga xam ne euh, mu ngi noonu wàcc ne bu baax a baax troisième journée campagne bi waaw ah donc euh, ba tey gis nga déjà imam Dramé ngi noonu fàllu mën nga ma ko jël mu ngi noonu di distribuer li ngay xam mooy spécimen. waaw sant yàlla rek sant rek. waaw nañ dox mujj naa waat si li nga xam euh, ne moom mooy euh, moom Khoureysi euh, Khoureysi Thiam mu ngi noonu ànd ak imam imam la àndal délégation bi nga xam ne moom ngeen gis démb tamit mu ngi si woon tey kazalika naka noonu Euh, gis ngeen euh, xaaji imaam maa ngi lay nuyuwaat. waaw maa ngi leen di fay tey bés bii nii lan lay symboliser ak lan lay représenter si li nga xam ne mooy parti politique Pastef. waaw mais lii Pastef moom xam nga fii ay jamono bu ñu fi daan ñëw ay lacrymogène moo ñu fi daan jële ah, tey nag bisu feet la campagne lañ nekk campagne lañu nekk quoi campagne moom da ñëw wax sa programme bàyyi ak sénégalais yi ñu tànn. te ñun am nañ njortu ni bu buñ ci àggee bu leen neexee mën nañoo génne yi nekk ci urne yi mooy jomaay dem na pale combat bi jeex na parce que combat bi commencé wul tey waaw sénégalais yi teel nañoo comprendre projet bi ni projet bi seen projet la ñu teel ko seen bopp surtout jeunesse bi waaw kon tey bu ñu ñëwee fii fekk fi li du lu loo xam ne nii day bees mobilisation moom ku ko wax wax wax wax waaw yéen tamit ñu ngi leen di encourage journalistes yi parce que yéen a ngi wane image yi tey fu waay a nekk ci àdduna bi di ko seetaan di wax ni daal slogan bi mooy xëdd xëdd voté euh, ndogu jubilé waaw loolu mooy combat bi. alors euh, Khoureychi maa ngi lay nuyu. maa leen di fay bu baax. tey lan mooy nekk sa kàddu encore. waaw mais dara ñëw saafonte ak askanu senegal waaye rawatina askanu Dakar pour. Eh, non non non non non non non ko rek <laughs> waaw mais noonu la c'est les aléas de la politique hein. la bon dañuy ñëw saafonteeg askan waa Dakar pour euh, won ni bii mooy bu baax bi te incha allah le programme bi nga xam ne moom la ñu établir pour defaraat Sénégal incha allah. bonne relation nga am euh, Imam Dramé. ah non Imam Dramé c'est mon frère <laughs> loolu wax bu la <laughs> Imam ma relation nga am yow Imam déjà le fait que mu nekk Imam rek. sama waay la. le fait mu nekk imam rek il a une relation fraternelle et religieuse avec tous les sénégalais rawatina nag les mais moom c' un frère de parti et c' est un frère musulman donc moo tax tey ngeen gis ko fii moom ak ñoom Cheikh Bara Ndiaye ak ñoom Mara Niass ak gars yëpp waaw vraiment. yaa ngi yor say spécimen euh, bu Bassirou Diomaye Faye ak imam ngeen fas yéene koo distribuer sénégalais yi. fépp lañ koy tas fépp déjà on a distribué plus de vingt quatre mille spécimens et plus ñu chaque jour on va on plus de douze mille par jour waaw douze mille donc loolu mooy loolu mooy ñun suñu target ñun macha allah. li nga gisagum li nga gisagum si si si mobilisation beeg campagne bi ndax dal na xel. sant yàlla rek waaw dañ koy sante suñu borom rek ngeen gis ni sénégalais yi ñëpp ison ont adhéré au projet liñ doon nëbb mu dul nekk nekkul woon dëgg tey nekk na dëgg parce que nëbb woon na waaye tey feeñ na parce que tey ku gis le président Ousmane Sonko sortie bi génn ñu ne setal nañ ko ci lépp luñ ko doon toppee. nga xam ne loolu yëpp ay caaxaan la woon mhm. waaye yàlla kese mooy ki nga xamante ne moo la mën a solol yére bu weex dugal la ci diwtiir ba mu tax répit nga génn te doo am benn pepp bu la taxal te loolu dañ sant yàlla bu baax baax mais loolu li ñu ko may li ñu ko may mooy dëgg taxaw ci dëgg te dëggu ci loolu kese moo la ñu koy may te loolu moo tax tey abnégation boobu ñu am tous les sénégalais ñëw nañu région ci li nga xamante ne mooy projet bi naam wéetoon nañ ci waaye tey alhamdulilah parce que li taxaw ñuy def Sénégal moo taxaw ñu def te ubbi nañ suñu ubbi nañ suñu ndigg nar a boot ñëpp amul ku bokk fii amul ku bokk fee képp ku gis ni projet bi doy na la képp ku nangu ni lii ñuy woote dëgg la ñëwal nga fekk suñu parce que Sénégal lañu bëgg defar et cette constitution là on a besoin de tous les Sénégalais de tous les enfants du peuple venus de la diaspora mais aussi vivant ici au Sénégal parce que pour refaire ce pays là nous aurons besoin de tous les Sénégalais tous les Sénégalais sans exception et d'horizons divers Khoureyssi Thiam jërëjëf imaam rek. waaw mais li Khoureyssi wax rek Ousmane Sonko dafa woo Sénégalais yëpp sans exception ak race boo mën a bokk ak diine boo mën a yor na nga yor nationalité sénégalais rek wala carte d'identité nga ñëw jàpp ci liggéey bi parce que réew mi pour ñu tabax ko ab génération ñoo koy tabax moo tax leader yi daw di ñëw na seen xel dal ñun Sénégal rek moo ñu tax a jóg du leneen loolu président ci la nekk Bassirou Diomaye Faye ci la nekk. ñun ñi ko jege ànd ak moom xam na ni ci loolu la nekk dañu woote réconciliation nationale tabaxaat réew mi delloo siwaat institution yi république bi valeur yi mu amoon ñu delloo ko lii mooy message waaw lii mooy message bi. imam jërëjëf alors euh, mu nekkoon imam euh, Dramé mbokk yi ba tey rek euh, ñu. gis ngeen noonu ba tey euh, li nga xam ne euh, mooy caravane bi waaw waaw ku baax. jaar fépp ah Sonko kase kase kase kase. donc fi na ni tey nan ngay yëg sa xol tey. mbégte mbégte te gëm ne élection yi dañ koy gagné au premier tour 10 heures ñu tàqale ko ñoom loolu laa gëm. 10 heures teel na de. eh gars yi nee rek man maa ne rek mais gars yëpp 9 la ñu waaw yow yaa si maa ci yokk rek pour neexal pour neexal bébé Amadou bébé Amadou laa bëggal rek moo tax ma ne ko. jëlee ma borom drapeau bi. ndaka organisation bi. ah waaw na ba pare saa amul séeréer de. daa tàng. ah ma daa tàng. sama yaram dafa tàng lii jëlu woon campagne yow ñun ñoom ñun la ñu àndal ñoom la ñu jarul campagne barke Rasulaay da leen rendee ginnaaw fii premier tour incha allah rabi premier tour ñu ngi ñaan yàlla élection daal yàlla na amoo jàmm bu amee incha allah rabi nga xam ne lépp dëgg la waaw xëdd dama war ci ndogalu sibile incha allah rabi Sonko rek Diomaye Sonko mooy Diomaye incha allah le premier tour yàlla ñu yàlla ndam kontaan bu baax a baax jërëjëf